di góor gi làqoo dañ ko jéemal sa tooñ jàngal li xalaas nga yéene ko ko ne ko jéggal gis nga jour bañ koy defal xadratul jumaa am na xale bu siwoo turam sànq te dikku bëri na lu may wax te man li mu may wax duma ko gis moom moo koy gis mu ne ma nangam ñëw na fi jamono jële ne ma borom tabax bële seen naa ko mu taxaw fa wallahi wal kitaab jour xadara ba daf ne ma fi nga toogoon ma ne ko wax góor gi sawet la toogoon ku seetlu kew ba bi la moy xat yep manam sa baaw ka ci ñoo togo ñi duggal chef suñ koy tek pourtant espace ngi sama wet tegu fa ses ka mu ne ma da fay ñew ci hadra bi way yorul jëm bi mu yor manam jëm gi la mais tay bi benen tay la mu ne ma saaku yi ñu takkon fo ci saaku yi la jaaree ba muy delu bi nit ñi bare mu ne ma bu ñi hadra aussi nii woon rek ma ne ma ci beneen mag mi ngi nii sama gannaaw ma dégg mu keroog xadara ba dégg na fa baatu góor moo tax ñun ay wàll yu rek lañ fi am leneen nit am yëg-yëg bu ko ëpp doole góor gi Idrissa Diouf keroog toog nga ak moom nii ba sama xel dem ma commencé bindal ko danga ko génneegul waaye mi ngi ma denc ñu wali yu yaa ngi fi fi gis ormaalal rawatina mag ma wax leen ko damay faral di wax ne mag lu mu ñàkk ñàkk fayda ci bëtu nit ñi comme mag la jox ko mais ñu Omar bu ñu def li ñi di def ci dëkk mu ne ma di contre mag ñi ma ne ko mag bu ne ci dëkk ba mën naa yenn ndox moom fanaan lu may wañ mais daf lay yokk Imam Moussa mi bëri na lu muy wax moom xëy moom ay waxam yi comme wax Omar ibn Khattab xanaa yéen su ko defee dañ koy def comme guddi na lenn rek moo des dañu gis ne am na crise d'éducation bu fi am yaratuñu daanaka dañuy bàyyi xale ñu présenté loo xam ne ci yar lay teel balaa ñoom ñuy dugg dañuy jox imam yaakaar naa mu tënkal ñu ñetti kàddu yu gàtt rek moom aussi dafa représenté benn groupe bu ñu tuddee Daagu Tànk waaw xëy na dina jël pare xale yi dugg suñu xale yi pare ñu ñaanal ñu waaw. macha allah. baarakallah. salaamaaleykum wa rahmatulah barakaatu. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على نبي أرسل رحمة وهداية للعالمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ah آه، يمولين دي نيو دي لين زيار دي نيو leen ziyaar دي nuyu دي نيو de امام يو tedd ñu màgg ñi nga xamante ne ñoo nekk suñu kanam ci dëkk bi di Baay Moodu ak Baay Seck ak magi dëkk bi yëpp di ñaanal yàlla yokk leen wër ak sutura ak di ziyaara mbooloo mi di leen nuyu jël ziyaar bi ak nuyoo bi teg ko ci loxo al imam al ustaz Ibrahima Ciss di ñaan mbooloo mi ñu yokk ko ñaan ñu yokk ko ñaan bu baax ndax ndaw la te xiiboon la ko dañu koy bàyyi xel di ko ñaanal bu baax ndax responsabilité bi muy yore ak taxawaay bi muy def di ko jëm ci ndawi dëkk bi waaye mala ndax bu dëkk bi waaye ndawu gox bi yépp taxawaayam fës ci ñu jaara ñaanal la euh, biir ak biti yàlla aar ko ci biir aar ko ci biti waaye itam njaboot bu ndaw bi nga xamante ne ñoom la waajur yi jël teg ko ci loxoom ndax wóolu ko ci li ko yàlla dénk ci xam-xam waaye ak li ko yàlla dénk ci yar ak xam ak ràññee ba tax ñu jël seen njaboot teg ci loxo yaakaar boobu yal na ko yàlla génne jëmmal yal na ko yàlla génne dëgëral yal na ko yàlla génne feddali ak képp koo xamante ne dénk nañu la ay ndaw yaakaar ci yow nga def ci ñoom xam-xam waaye yaakaar ci yow nga def ci ñoom jikko yi nga xamante ne ñooy jikko yi diine ah, li ñu fi xale yi won depuis ci suba ba léegi yaakaar nañu ne ku ci sa xol seddul seddal sa dootul yombati ku ci kontaanul kontaan loola dootul yombati abu kurwa la koy wata min jakka so hon ngade lila nga ya, ah du gesi yo di sama me bahna ha ma haji kan ala hanna ma batte ak ma met dekk bi waalaikum salaam na ngeen def ñang ci yeen ci jam ki nu ma ko jéppee noo ko jéppee kii de niñ ko gisee nii ak muraam bi yëpp ak jaay kau bu mu nekk ci dëkk bi yëpp ndek sàcc la sàcc waaw lu la ci wóor maa ci xam dara fekkee nga keroog duuf est-ce que fekkul ma génn <laughs> yaayam de daa ñëw ba suñu kër di laaj ci dix mille am ne ko Aysatu mii moo ko jële yaayam da ko laaj naan yaayam na jëlu ko lii de la des te nag xoolal en tourne neex ñoom dégg naa danga xaw a ratax de nag maa ngi baax na maa ngi àgg si biir ka man da jahanam me garaw salaman maaleykum astu sabar yes ja sant yàlla nga ne na muy ne yent rek parce que nak sa xew xanaa ndeke jaay maanaam bu nekkee ci dëkk ndeke moom ab sàcc la ndeke mau 10 000 bi yaa ngi mau war borom moo ko jël xanaa man ma seen info te xoolal nag ànd ak ñun man ak yow taamu nga li ma la wax nga Gila billaay waxuma lool sax yëngal li xew ci loolu lañu ah xadi yow gaaw nga de lii lan la gaaw asu tamit kenn gën a laa gaaw yaa ma gën a gaaw laa ma ko ko yaa ko gën a gaaw yow tamit gaaw moo tax nga wax ma ko man moom damay déglu rek lu ma la wax leen kan nga maaleykum salaam. ne jàkkee ñoo ngi ci jaamu naka tàngaay bi. tàngaay baa ngi nii rek. tey moom dafa tàng. tàng na kay. ah maa ngi jégalu def noppi amul kubéer sànq ba tey li ngeen fu wax dégg naa ko daa fekk ne ki ngeen naan sàcc la yaayam daa tegoon xaalis bu génn. mu ñëwee mu gis xaalis bi mu dencal ko yaayam ba pare ngeen naan sàcc la te ki ngeen naan sàcc la moo leen gën ndax lu mu bon bon denc na xaalis ba yaayam ñëw mu jox ko ko te yàlla suñu borom dafa wax ne soo tuutul xujuraat yaa ayyuhal lazina amanu in jaakum fasikum bi naba'in fatabayyanu an tusibu xawman bi jahalatin fa tusbihu ala ma fa'altum naadimina yàlla suñu borom dafa wax ne bu leen kàccoor andilee information na ngeen tey ba am ci lu leen moom su ma sañoon ngeen moytu loolu. ah bii gàcce de xaw ma fan laa koy waxee. man de maa gën a am gàcce man mi nga xam ne maa jël affaire bi ma ne gàcce ko ba mu mel ne dëgg lii moom dootuma dalati. man moom maa gën a ñeme ñëpp seytaan ndax kaa bu ñëw rek ma gëm man moom. damay déglu rek luñ ma wax ma gëm waaye gàcce bi duma ko ci xaar. lii moom day jàngal nit ne bu la kàccee indilee information na nga teej ba am ci lu wóor ngay soog a wax su nekkee moo ko def nga yeddi ko su nekkee ki la indi information bi nag waxul dëgg nga xam ne ku la indi information bi moo fen kon nag nañ dem ci kër ay satu ñu baalo ko ak moo gën वो करने Why, ano pa do? Kapsado ko na ako, dami na ako tinigang mo ako. Ah, nangyan. Kaya ni Bordo, upe ko pita Ah, waaw Fatou dem nga de ni nga waxee ak sama bàjjen. eh wax na ko dëgg yéen daal doo bàyyi heure bu Fatou rek am njaay indil joob lii moom jëkku sax taar garab bol maa xale. yaay wax na la dëgg donc tamit dañ koy yàq añ leen te noppi. war sa kum jàmm maa ko moo lay njëkk mbokk. yow moom toogal foofu rek di wan. papa kenn ki la. booy xanaa ndox daa amul ci kër gi. waaw ceeb bi dafa wow mu ba kaa lekk suur na. man ni ñàkk bee sa moo tax ma koy lekk nii. far ma yàlla ma ndox foofu ma naan. am na sant la am Mariama yaral sa doom ji xale dañ koy yar baax na eh balaa ngay wax wow yor doom demal ba am jëkkër ngay soog wax wow yor doom nga ma ko trop ne ñu ñëw fexe ba dem soo ngay maxee donc fépp dina yaay yooyu dem de fii na Fatou sama bàjjen munu kaa yoon muy bay gis nga yéen dangaa naan seytaane soo doon moytu fii laa ñëw ci ndab li képp ngeen sama abit waaye kenn maa bañ moom na waxuma la dama nga raas ndab de. lama gue jago. Ya sih ya. Kita yang ngomongin deh. Ngomongin deh kita. Mana ada mix nih? Ngomong Ani wah tuh dah nol yang si nak jelek besar dapat yang lecim kan di nambangan. Tuh ani wah tuh dah. Fide, basur, nan ba mandi. waaye njuumali ci kër gi may ma jaamu may ma salaam. kon njuumala nga woon daal sama turandoo. nga wax sa turandoo kese moo mel noonu. ah di ku yaru sa doom la dugal foo wërta dugg. dama la jiite moom kii de moom man mënuma ci wax dara ndax man ma waxee dina xaaral ba sëy ba jur doom nga door jur doom. xam nga baayam yaaram la bu wax su waxee sax ñu ne ko maa yéegoon taabul sama jooj da nga kaa namm de soo demee moom sa jardin ba ay xaritam teg attaaya loolu kese mooy lu jëm ci kër gi Chamado divino perdão. bàyyi naa ko yow si jaral changel yow mii sax weer bu bees soo ma jooy fii ngay ma xeex ku ma nar a sonnal ma bàyyi la ndànk jàll ci leneen moo taxit de doo musa génn kër gi fii ngay ma xeex mooy dafa xaxee day day yomb lii lay nekk ba tey asalaamualeykum salaam wala maa ngi maa ngi nii rek yaa rek jaam rek pagal ni wajar daawul gas ataay wi ataay ataay bi nga xam ne ñu war gi suba nga ataay wax ma sax attaay bi war naa gaaw na instant mën a ba sama bopp baa ngi metti ana Fatou Fatou kaay wuy sa baay am dawal buddi eh, nga jëndal ma warga ak suukar jëlal lii nga dem bitti bëgg jënd attaay ak suukar nga dama sonn yaay ka ak

yaay tamit man nga yoni xol nga ma ya gëna xamne duma dem frigo mi ngi noonu yoon ba amul paas taalalal ndànk ay waa ni ni lii nu mu la lii nu mu la mën a galee nga def sa doom yu bakki ñu ñu doon kii kii xam nga ne ay magam ñoo ko doon kii xam nga ne yaay moo ko waaye bu amul baat si këram ni kese la mën mel. daa mel ni jàkk jàng noddu ni ñu dem waaj. waa ana ma la. nga jënd nga ngeen lekk may bañ a tudd bi ngeen jël nii bu leen ci dara jëlee te ni ngeen mel nii na ngeen ko continuer ndax respecté ngeen seen yaay ak seen pap ak man seen su ngeen mel nekkee jàppale ma dugal lii ci biir. maa bañ bàjjen bu seytaane waaye yow fii ngay maxee doo musa sëy doo musa am doom toogal foofu rek. kii ma la ko bu ko sa gëj a gis kay ah fekkee ne maa lay seet si doo ma seet kay di ma gëj a gis wax loolu xam nga ne ñàkk a jot bi la rek non saa de boo ma loolu sax yow foo nekkoon fan yële man dama tukki woon barki démb rek la ñëw tukki waaw waaw ay sa du booy tukki do taagu saa xam nga ne yow bekki la rek ah. ma bettul woon naa ñëw yow ba ta taagu la waaw baax na waaw waxuma loolu li may dégg ci kon bi déggal Konyokon bedo bedo mbedd fat fat faatu faatu faatu rek la ñuy waxtaan ndax day sama doom deful dara nañ ko bàyyi ndax loolu jaar ba xaw sax may eggee ni sa doom moom war nga ko yaat ndax li ko yaay baaxul xam naa loolu bi may ñëw rus naa trop salaamaaleykum waaleykum salaam waa xale yi na ngeen def ci Quoi, c'est Fadou Ouais. Fadou Fadou Giờ đứng cũng tường nè Thank you.

du li yàlla waxoon léegi xale bu toll nii nga koy bàyyi guddi gi muy génn bal papam yëg na ko papam yow de siboo déggoo naka waar papam de fii laa ko takk sama la fu seet lu ma wax lool lay def li ma bëgg ci loolu lay dox xanaa neex na ah xam naa ne betti nga ma de bett waaye leneen laa lay xamal gis nga xale bii fi nga jëm ak moom ndox du fa am te junju doy na borom xel maa ngi ànd kër ga te li ma la wax nga bàyyi ci xel bu baax. waaw doo toog. garaawul xaaral naa fi ñëwaat waa nuyu waa kër ga. ah dafa mel ni kii junj na ma de. waaye baax na. ndax ni xale yi mel ak ni Fatou mel naa jéem a salaamaaleykum. maaleykum salaam. maa ngi bokk. waaye jaay. waaw. ñoom ngeen. ñoom nañu waaw. yéen a ngi jàmm. waaw nga def. ñoom moom tàmm nga heure fi ñëwee rek lekk ngay njëkk a laaj rek xaaral ma dem wala kang ikatang nabawasan ako. Ah. Ano ka rin? Ayun, yung si Bill. Wala mo rin. Aminta, Mariama, na, kailan mo yun? Salamanko. Papa, yung yun. Baso na rin. Papa, ano sa laki ang sirgi. Sa kaya bu Bola lap enak apa bola Koser. Konser ñun ñun bu ñëw dëgg na ngeen am na ñu agré ci yoru ñoom loolu laa ci yéen ñaar ñi wax ma xale ne xam yi bu bu seen bëgg bëgg ngeen defal seen bëgg bëgg dangay xool ci xale yi ci li leen arrangé nga defal leen ko loolu effort bi ñu ngi ci war mais baax na xam nga dem yëngal bi dellu kuy dimbali leen ma ak sama doom. yaay dara te tudd yaay. kuy mun maa ak sama doom. dalal ayal mu.